asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan fii ci Star TV ñoo am mbégte rek euh, pour dalalaat leen rek ci programme suñu réew euh, tey nag euh, suñu réew dinañ dem seeti li nga xamante rek moom la yéenekaay yi xëyee tàmbalee ko altine ba ajuma tey fii ci suñu biir réew su ko defee rek dina am waxtaan tamit bi nga xamante rek dinañ ko seq ak kii di lawyer bi Hegby waxtaan waxtaanee nag lu jëm ci wàllu constitution réew mi mu di baatu réew mi ndaxte xam nañ ne baatu réew mi. moom mooy bokk ci li nga xamante rek moom moo mun a yóbbu réew mi ndaxte moom mooy doxal ab réew euh, su ko defee rek laata ñoo ànd ak yéen ci yéenekaay yi nga xamante rek am nañ ko fii niki tey damay dalal Omar Tunkara suma naataango moom it mu nuyoog askan wi Omar dama lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Seydou maa ngi lay nuyu di nuyu askan bi nga xam ne jamono ji ñu ngi seetaan Star TV euh, fii ci biir euh, Kombo rawatina fii ci Babouñ Faty di nuyu askan bi yëpp ñi seetaan si diaspora bi. di leen wan ne rek ah, dal si jàmm ñii ni yéen a ngi ànd ak ñun si seen i programme bi di suñu réew suñu réew nag ah, ajuma ji nekk dina faral di ñëw ah, su ko defee ñu daal di waxtaan lépp li nga xam ne nag moom moo itteel suñu réew waaye tamit gestu yéba yéen ak yéen kaay li nga xam ne loolu lañ jot a ànd si semaine boobu su ko defee ñu daal di koy càmbaar ak yéen kon nag leen def rek mooy da ngeen di dal ak jàmm su ko defee ñu ànd ak yéen si programme bi su ko defee rek eh, dañuy eh, dugg rek xuus ci eh, programme bi ci boppam rek ndaxte dañuy dem seeti li nga xamante rek moom la yéenekaay yi xëyee rek tàmbale ko altine ba ajuma ni ki tey fii si suñu biir réew dañuy dem seeti rek yéenekaay bi di standard newspaper ci seen xët bu bi nag andi nañ ki nga xamante rek moom moo nekk chairman bu independent electoral commission bi mu di Alieu Momar Njie foofa nag mu ngaa dàqalu kàddu yi nga xamante rek interim leader bu opposition APRC parti bi Euh, gaarale ne ko di wax ne nag ci atum 2016 presidential election yi ñoom APRC parti bi nag euh, dañoo jàpp ne dañ sàcc li nga xamante rek moom moo nekk élection yooyu ndaxte dafa am njuuj bi moo tontu kàddu yooyu bàyyeekoo ci honorable Fabakary Tombong Jatta euh, wéral na ne daal amul dara li nga xamante ne mun nañ koy def pour sàcc carte yi ci anam yu bees yi nga xamante ne IEC ñu si sukkandiku pour rek gaarale ñaata la candidate si am ci presidential election yi ndaxte mu ne fu ñuy sànnee carte yi foofu la ñuy compter yi yóndee ko ci màkkaanu IEC bu nekk ci tudd woowu laata ñu ko koy yóndee moom kii di Alieu Momar Ndiaye eh, fii ci biir réew mi mu ne kay xanaa ki nga xamante rek moom moo nekk jàmme kay moo bëggoon euh, pour mu daal di ko dollil ay karta ndaxte ñaar fukk ak juróomi junne yi karta jàmme sàkk woon na ko ci moom kii di Aliou Momar Ndiaye euh, pour mu daal di ko dollil ci ay kartam su ko defee mu am ndam euh, ci présidentielle élection yi mu ne nag wax li nga xamante rek amuloo ay wéeruwaay yooyu indi rek pour sukkandiku si di wane nag loolu lu déggu la fii ci biir réew mi mu ne loolu lu doy waar la fii ci biir réew mi benn tey rek ci beneen xeet bu standard newspaper foofa nag andi nañ fa ki nga xamante ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk kuréel bi eh, ñu gën a ràññee ci ñi di AFLA ñoom nag ay eh, lawyer lañ yuy sukkandiku rek ci wàllub dimbale ñi nga xamante rek ñoom lañ néewal doole ci àdduna wërngël képp yaaqa lu xeetoog seen àq ak seen i yelleef ñoom nag ñooy am am ndaje bi nga xamante ne war nañ koy defee foofule ci biir lii di International Criminal Court bi eh, ci liñ gën a ràññee ci 17th session of the Assembly of States Party to the International Criminal Court foofu nag dinañ waxtaanee yan façon yi jéego la ñuy jël rek pour gis ne dinañ jàppale ñi nga xamante rek ñoom la jàmme néewal doole bi muy jiitu réew mi ci lu toll ci ñaar fukki at ñaar euh, pour daal ko yóbbu ci biir réew ah, Ghana ñu àttee ko foofu ndaxte Ghana tamit am na campagne bi nga xamante ne tàmbali nañ ko ndiki weeru mai euh, pour rek ñu delloo jàmme ci biir lii di réewu Ghana ñu àttee ko foofu ndaxte Ghana lu toll ci ñeent fukk ak ñeneen ci seen i doomu réew yi ne woon ci biir réewu Gambia bokkoon nañ ci ñi nga xamante rek jàmme jëloon na seen i bakkan moom ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ay soldaaram gannaaw bi nga xamante ne wax nañ ne lu tollook juróom fukk ak ñeneent eh, ci African migrants yu teeroon fii ci biir réew mi ñàkkoon nañ seeni bakkan fii ci biir réew mi su jamono ju jàmmee di jiite réew mi. benn tey rek eh, buñ fa bàyyeekoo dañuy dem seeti xët bu njëkk bu ah, Foroyaa newspaper foofa nag ñu ngi gaarale ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambia Ports Authority euh, ñoom nag wéral nañ ne ferry bii di Kanilaay euh, daal dina pare maintenance bi nga xamante ne ñu ngi ko ko doon defal foofa la ci biir di baa Banjul euh, jamono ji nag wax nañ ne dina tàmbali def ab liggéeyam di eb nit ñi nag di leen yóbbu foofale ca Baara ndaxte jàpp nañ ne nag ferry Kanilaay bi yàggoon na ci li nga xamante ne moom moo nekk tefesu Banjul bi pour rek ñu daal di ko am maintenance waaye nag jamono ji ci press conference bi nga xamante ne rek daal di nañ ko oote taskatu xibaar yi teewoon fa comme ni ko yéenekaay bi la andee di Foroyaa newspaper xam le nañ ne daal féeri kanilaay bi eh, jamono ji ah, pare na te nag lépp li nga xamante ne ñu ko doon defaraat ci féeri bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax comme ni ko yéenekaay bi la andee di Foroyaa newspaper benn tey buñ fa bàyyeekoo rek mbokk yi dañuy dem seeti rek xit bu njëkk bu eh, Daily News eh, Paper foofa nag andi nañ fa député bi ñu gën a ràññee ci kii di honorable Madi MK Cissé moom nag euh, bu ma waxtaan nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk taskatu xibaar yi comme ni ko yéenekaay bi la andee euh, foofa nag gaarale na fa ne jiitu réew mi di excellence si président Adama Barrow moom nag contrôle te du musa contrôle ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk UDP National Assembly members si euh, ci pencam ndaw réew mi comme ni ko nit ñi di waxee fii ci biir réew mi moom kii di honorable Madi MK nag daal dina dàqalu kàddu yooyu leeral mbir mi wax ne nag UDP seen National Assembly members yi ñoom nag dañ dee faral di def seeni i liggéey ci pencam ndaw réew mi ndaxte kat kat dañ dee faral di laajte li nga xamante ne moom moo jara laajte ci pencam ndaw réew mi bu fekkee ne tamit indi nañ bill si dañ ko dee scrutinise ci biir li di National Assembly bi laata ñoo wone fi nga xamante ne fa lañ far ci ni mu mel comme ni ko Madi MK Cissé wérale mu ne nag UDP e UDP eh, seen eh, député yi fii ci biir réew mi nag nekkuñ ñi nga xamante rek njiiti réew mi di excellence si président Adama Barrow moo leen contrôle fii ci biir réew mi comme ni ko yéene bi la àndee di eh, daily newspaper mbokk yi bu ñu fa bàyyeekoo rek dañuy dem seeti rek beneen xët bu njëkk bu euh, ñi di standard newspaper euh, ni ki tey rek euh, ajuma lañ xëyee ab xibaar nag di wane ne kii di Papa Ndiaye moom nag jamono ji wane na ne daal bokk na ci parti bi ñu gën a ràññee ci PPP fii ci biir réew mi moom kii di honorable Papa Ndiaye nag bu ma waxtaan ak taskatu xibaar yi indi na ab leeral di wane ne nag bu fekkee ne ñi di PPP tànn nañ ko nag am kóolute ci moom pour rek def ko ki nga xamante ne moom mooy jiite seen parti bi dina jiite parti bi fii ci biir réew mi waaye jamono ji nag li nga xamante ne moom moo ko a yitteel moom kii di honorable euh, ne fa la nekkoon fii ci biir réew mi kayitu xibaar yi di fàttalil askan wi ne moom kii nag nekk na ki nga xamante ne euh, mu nga bokkoon ci ñii di UDP mu di United Democratic Party bi waaye nag ci élection si nga xamante rek weesu nañ ko mu di mayoral élection fii ci biir réew mi gis nañ ne dafa am rëg-rëg yi nga xamante moom Papa wax na ne xewoon na ci congrès bi nga xamante ne UDP def nañ ko ñu tànn ki nga xamante ne moom moo nekk Talib Ahmed suuda te wax na ne nag loolu jaarale wuñ ko ci yoon be looloo waral nag moom mu daal di beddeeku samp na ne boppam wax ne nag independent candidate la ci mayoral élection yooyu jamono ji nag wane na fi mu féete ndaxte kat mu nga teeree ji ci parti bi ñu gën a ràññee ci PPP fii ci biir réew mi su ko defee rek dama leen di bàyyi rek ak Omar Tunkara moom it mu dem seet yeneen xibaar yi nga xamante ne rek yéenekaay yi xëyee nañ ko fii ci biir réew mi jërëjëf euh, Seydou su ko defee euh, dañuy jàll rek dem seeti ji yéenekaay bi di Foroyaa newspaper ndax ca Foroyaa nag euh, si semaine bi nga xam ne moom lañ nekka ci coow li nga xam ne moom moo am foofule Sabiri li di euh, Diabougou ci euh, Sandu district bu Upper River Region foofu le nag dafa am coow bi nga xam ne euh, ñoom ñoo dañoo jàpp ne si dëkk bi la gaay yi si ak ñeneen ñoo xam ne nag ñoom nag jàpp ne ne bokkuñ si dëkk bi gaay dañ demoon nag pour julli jumaa bi ndaw yi nga ñoo judd ci dëkk bi ñoom dañ ne woon nag si li lii nag ba ne lii mbir mi la ji law na na àgg na foofu la sa biir euh, Diabougou nekk foofu la sa Sandou district ASP e Lamine Ndiaye mi nga xam ne moom mooy yor police seen kàddu bi ñu jotee waxtaan ak moom moom itamit nag li mu wax si wàllum lii di coow mooma mooy mu ne dégg la nag xibaar bi lu wér la ndaxte nag coow li am na si diggante ñu jiitu si dëkk bi ak ñoom lañ jàppee ne ay jaam lañ waaye nag nee na téye ñoom na ñetti ne nag moom na si kanam di atte gaay su ko defee di gaay ne bu euh, jot na ko waxtaane ak ñi di Foroyaa newspaper mu ne

dañ nga bokk ne nag moom moo ko mujjoon a fay kon nag si boppam nga xam ne nag euh, moom amoon na euh, bi dañ war a gaaw nga génn li nga xam ne nag moom dëkk bi ndaxte yow bokkuloo si li nga xam ne nag moom dëkk bi di diyaa bokk si boppam comme ni ko euh, ma bi nag wéralee di nga xam ne nag moom moo di euh, Gaynde Diallo mu ne moom nag mu ngi oo nguur gi pour ñu jóg si daal di si dégaat seen tànk ndaxte cool yi naa euh, law te ñoom dañ ne daal daal nangu ne ñoom ay jaam lañ bu buggee toog si dëkk bi amaana buñ ko defu laal ñoom lañ leen di génnee li nga xam ne moom moo di euh, dëkk bi comme ni ko alkaali bi wala la euh, léegi nag euh, nee nañ police yi dem nañ foofu pour daal di yokk seen taxawaay foofa pour tamit mun a delloo foofu jàmm ak dal si lii di dëkk booba buñ fa bàyyi ko benn tey dañuy jàll rek dem seetiwaat beneen xibaar si yéenekaay bi di Foroyaa newspaper benn tey dinañ dem seeti ji moom kii di Sirif Diop Sirifo Diop nag ñu ne waa Bloc la nekk foofu la sa biir foo ñi di West Coast di doon moom nag moom moo joxe ab xibaar di wane ne daal moom drive am bi dañ koo téye euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko dóor euh, moom ko nag dóor yi métti ndax nag kooku nag dañ ko moo ko luwaas pour mu yebal ko ay banta jëlee ko foofu la sa sangajoor yóbbu ko ca biir nag si ajuma ji ñaari fan yi nag si wérum novembre waaye nag nee nag banta yoo bu ñu ko yebee bu ñuy dem ci yoon mu ne gars yi dañ leen njëkkoon a stop foofu la si Kampenda si Kanila Johnson bi waaye ñi leen stop foofu la sa biir bu yaam waaye nag si kàddu nga xam nag moom la ñoo moom foofu la sa sangaajor yóbbu ko foofu la sa biir Brikama mu ne li ko lew maanaam jëlee ko foofu la sa biir Sénégal waaye nag wane ne daal ñii di soldats yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci yoon booba mu ne gars yi dañoo stoppoon nga xam ne nag driver bi nekkoon daal da nga paak si boori yoon waaye nag ci paak boobu la driver bi nekkoon gars yi si leen ko attaque foofa wàccee ko si li nga xam ne nag moom moo di oto bi dóor ko nag foofu dóor yu métti ndax dañoo jël seen i bopp fetal yi di ko dóor ki nga xam ne nag moom moo di waajooja mooy driver bi mu ne gars yi emuñ fa de am na kenn si ñoom ki doon wa ko doon wante sax ne la dóor fii ba ñu daal la rey mu ne moom bu mu gisee loola si saa si dafa daw dem si Sibano police station bi mu daal report foofu li nga xam ne nag moom moo di case bi mu ne mbir mi nag jamono ji gars yi see def jàngat bu baax a baax ndaxte mu ne moom dafa si njëlbeen bi daal dafa jàppoon ne gars yi ñu ko doon dóor nag ñooñu ay soldaar gambiens lañ waaye dañoo mujjoon a xam ne sax ñooñu di ñu économique ndaxte économique si boppam daal ki yor seen kàddu moom itamit moo

Lamine Ndiaye nee na moom daal bu si amee lu ko leer dina si jot a jokkoo ak nga xam ne nag moom it askan bi jaarale ko si lii di taskati xibaar yi nekk fii ci biir réew mi benn tey dañuy jàll dem seeti standard newspaper ndax ki jiiteegum APRC di Fabakary Tombong Jatta moom nag war na ne par seen parti bi nag di APRC mu ne ñoom yëpp léegi nag mu ne xibaar bi ñoo wax fii ci biir réew yëpp ne ñoom toog nañ ak moom waxtaan ak ñoom mu ne yëpp ay xibaar yi ñu laam-laam le nag fii ci biir waaye amul benn yoon ndaxte mu ne dafa mel ni gars dañoo ragal lii di APRC APRC léegi dafa génn si waat wane ne daal ba léegi ñoom fañ nekkoon démb ba léegi ñu ngi fi te léegi léegi nag ñu ngi am doole fii ci abi kon nag wane ne amaana loolu la ragal moom moo tax nit di wane daal président bi daf leen oo pour toog waxtaan ñoom mu ne waaye loolu nag naka fii ci abi réew mi ndaxte dara la ñoo nëbbu ñoom dañoo set comme ni ko Fabakary Tombon Jatta wéralee mu ne ñoom daal moom moo ko jiite loolu nag jot nañ ko ko laajte ne euh, Jammeh dafa bokkoon si ñu sos na te ba léegi nag ñoom euh, loolu ñu ko see sant di ko gërëmal si taxaw bi nga nag defal na ko li nga xam ne moom moo di parti bi ak li jot a defal li nga xam tamit moom moo di réew waaye nag ba léegi nag ginnaaw yàlla ñu ne ñoom Yaya Jammeh moom moo nekk seen yaakaar ndaxte lu mu bon moom daal loolu doon na loo xam ne doon na seen diggante ak nga xam ne naka moom moo moom la kii di euh, Fabakary Tombong Jatta wax si euh, waxtaan nga xam ne mu ngi ko euh, seqoon ak lii di taskati xibaar yi si press conference bi nga xam ne mu ko ote woon si këram nag ci fan yi passé biñ fa bàyyeekoo dinañ dem seeti ji wàllum lii di CRC bi di Constitutional Review Commission bi nga xam ne jamono ji Euh, pour mu daal di gestuwaat li nga xam ne nag moom moo di suñu baat réew mi mooy 1997 constitution bi su ko defee ñu daal di defaraat beneen bu bees bi nga xam ne ne Gambien bu nekk nag war si gis boppam fan yi nag ñu ngi woon foofu la sa biir district bu euh, North Bank Region buñ fa demee jot nañoo waxtaan ak euh, doomu réew lii di North Bank Region foofu nag ñoom itam nag sotti wante nañ nag a wax euh, a gàmment si nga xam ne ñoom itamit nag ñu may leen war a jox li nga xam nag moom moo di opportunité ko defee sànni carte bu jotee ñoom itamit ñuy daal di sànni ñu ne amaana nag léegoo léegi Ah, dina am daan yi métti yi nga xam ne dinañ ko teg gaa yi waaye taxul nag sànnikata bu jotee ñoom itamit dañ war a sànnikata lii na doon loo xam ne jotale leen ko li nga xam ne nag moom moo di commission bi si boppam a ah, tey foofu nag ñiñ fa waxtaan nañ bari nañ ku mel ni Alaaji Essa Diouf moom itamit ah, waa kër Waali Diouf la moom nag wane ne daal teacher service commission mu ne boobu tamit dañ ko war a am si li nga xam ne nag moom condition bi dafa war a dugal li nga xam ne nag moom lii di uh, sata bu bees bi wane ne daal uh, teacher service commission nag uh, dañ koy am nag fii ci biir réew mi waaye ginnaaw loolu jot nañoo waxtaan ak nga xam ne nag moom moo di bu Medina Serigne Mass imam Medina Serigne Mass nag wane ne daal mu ne am lu waaye bari ne nag war nañ ko fay dugal waaye moom bu ko a itteel mooy death penalty mun na koy wàññi fii ci bureau ndax nit boo reyee mu ne dañ la war a rey waaye tamit boo sàccee dañ war a dog sa loxo imaam bi nag loolu kaddu yooyu nag jotale ko li nga xam ne nag moom commission bi waaye nag si kaddu nga xam ne nag moom moo moom itamit nee na daal nit nga xam ne moom moo jóg

constitution bu bees bi nga xam ne naka ñu ko defaraat naka fii ci biir réew Gambia ndaxte gaa ngi ak li nga xam ne naka moom di askan bi nekk naka fii ci biir mi chief yi ak gouverneur yi maanaam chef yi nekk fii ak tamit gouverneur yi mu ne ñooñu tamit nekku xam ne président bi dafa war a jékki-jékki rek fal leen waaye dañ nit ñi nga xam ne ñooñu tamit dañ nit ñi nga xam ne daal nit ñi ñoom ñoo ko war a sànni karta su ko defee ñu tànn ki ñu ne ñu daal di koy nga xam ne nag moom di place boobu su nekkul daal nit ñi diñ mën a gom Ah, ki nga xam ne nag moom moo jiitee eh, wàllum sànnikatay fii ci bërëm mi kooku nag moom na boppam nag moom moo a génne fii ci bërëm ndaxte boobu a génne suñ ko doxalin boobu waaye nag nee luwaa boobu dañ ko war a daaxalu am na jigéen ñi nga xam ne jot wax ne sax ñu ne ñoom mu génnew loi boobu bu dee sax ñoom ñoo leen di tëj ci kaso yi fii sax taxul ñoom dinañ continuer di def seen cosaan bi nga xam ne nag wane ne seen maam yi nag ñoom ñoo ko fi euh, bàyyi woon euh, Seydou ah, jërëjëf kon nag uh, gannaaw buñ seetee rek li nga xamante ne rek loolu la yéenekaay yi xëyee fii ci biir réew mi Euh, tàmbalee ko altine ba ajuma bii ñu nekk tey euh, su ko defee rek dañuy dugg ci waxtaan yu am solo waxtaanu constitution yu réew mi euh, mu di baatu réew mi ndaxte kat am na constitutional review committee bi nga xamante ne ni daal dinañ ko samp fii ci biir réew mi pour rek ñu def seen liggéey def ab gestu ci baatu réew bu bees bi nga xamante ne rek Gambia war na ko am ndaxte kat gis nañ coppiteb nguur am na ñu gis ne njiitu réew mi di excellence si président Adama Barrow moo nekk njiitu réew bu bees bi nga xamante ne Gambia fal nañ ko ci président rectal elections yi nga xamante ne bàyyeekoo nañ ci ci atum 2016 bi mu ñëwee nag am na coppite yi nga xamante ne rek mu ngi koy def ak nguuram bokk na ci li nga xamante ne moom moo nekk constitution bu réew mi mu di baatu réew mi dinañ ci waxtaan waaye nag dinañ dalal gan bi nga xamante ne xam-xamam màcc na ci lu mu mel mu di lawyer Malick HB Jallow dinañ ko am fii ci biir kër gi rek daal di tàmbali waxtaan yi ak moom su ko defee rek euh, kii di lawyer Malick bi euh, Diallo lañ am fii ci biir euh, kër gi dañ koy nuyu rek moom tamit ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk seetaankat yi laata ñoo tàmbalee waxtaan yi fii ci biir kër gi monsieur Diallo nuyu nañ la bu baax a baax. jërëjëf maa ngi leen a fay bu baax man sax di am mbégte trop pour nekk fii ci programme bi nga am na solo trop parce que dafa mel ni li ngeen a def mooy pour jéem a ee nit pour xelal leen ak pour wan leen li nga xamante ne nii loolu lañ war a xam euh, as far as far as their roles as citizens is concerned euh, loolu am na solo trop su moo tax bi ñu ma ko yëgalee ne ma da ngeen bëggoon ma ñëw pour dekk seen ges pour mu am lu ñu waxtaan si lu jëm si wàllum constitution bi euh, dëgg la amoon naa yeneen engagement waaye fexe naa tam ba am tuuti temps boo xam ne dinaa si xëjal pour ñu mun a ñëw fii am waxtaan bi nga xamante ne nii waxtaan bu am solo la man nag su ma teewaay fii xëj na eh, mun naa wax ne ñaar ba ñetti mbaxana sax laay eh, mun naa sol mbaxana looya bi hmm. because looya la eh, maa ngi jiite law office bu ñoo ooyee law offices of Malik HP Jallow Esquire nekk fële Banjul waaye tamit soo demee si place bi ñu ooyee University of the Gambia fi nga xamante ne ni dañ faa jàngale am na daara bu fa nekka ñu ko ooyee faculty of law nga xamante ne ni ku bugg a jàngal loi fii si dëkk bi foofu ngaa jaar ñu jàngal la euh, pour nga mun a nekkal li nga xamante ne ni loolu la ñu ooyee lawyer soo demee foofu tam jàngalekat laa fa waaye tamit maa ngi fa jiitee li ñoo ooyee academic affairs board euh, mu nekk mbootaay boo xamante ne ni moom lañ sas pour lépp loo xam ne jëm na si wàllum saytu ñu dem si mbir yi ñuy jàng pour nekk lawyer foofu si université bi. boor boobu noonu euh, moo amee loolu euh, moo ko war a doxal moo ko war a sabab waaye tamit moo ko war a saytu euh, boor boobu tam maa ko jiite waaye in addition to loolu tam damaa jàngale senior loolu lecturer la at the UTG ba pare for past five years maa ngi jàngale constitutional law loolu moo tax na loolu dina am solo trop. dina am solo si topic bi nga xamante ne nii moom lañ bugg moom lañ bugg a moom lañ bugg a waxtaanee tey. dina am solo aside from loolu tam. Eh, li ñoo ooyee civil society have also actively engaged ab dans li ñoo ooyee charitable foundation mi nga xam ne mu ngi tudda institute for the advancement of children's rights eh, loo xam ne moom li ko tax a jóg mooy pour dimbale xale yi nga xamante ne nii xëj na am nañ ay rëcca rëcca ba luwa war leen a ba bañ war leen a yóbbu si yoon di nga gis ne léegi-léegi xale yooyu dañoo jógee si ay famille yoo xam ne xëj na seen loxo jotul seen gannaaw pour utal leen looya bu leen mun a taxaw man suma foundation bokk na si li ko tax a jóg mooy xale yu mel noonu dañ leen a dimbale taxawu leen jox leen looya leen dimbale jàppale leen te duñ si fay dara soo gisee ñu ko def nag du pour encourage xale yi pour ñu bonde waaye dañ gis ne xalel su tooloo stage boobu su juumee ñun lu ñu war a tax a jóg mooy not pour punish ko waaye pour jubanti ko parce que passé wul jubanti moo tax suma foundation bi tam euh, am na liggéey bu am solo mu ko def si si fànna boobu so I'm very pleased euh, jërëjëf euh, Mr Diallo loolu am na solo euh, waaye nag li nga wax moom ci boppam la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. moo di luwaay réew mi ndaxte réew mënut ta dox. Mm-hmm. sans loi. Mm-hmm. loi mooy doxal réew. te bokk na ci luwaay yi nag mooy li ko jiite mooy constitution bi muy baatu réew mi. Euh, te nag jamono ji xam nañ ne am na coppite yoo xamante ne rek ñu ngi koy waajal ci luwaay réew mi mu di constitution bu bees bi nga xamante ne rek nar nañ koy indi ba loolu waral nag am na constitutional review committee bu bees bi nga xamante ne amale nañ ko fii ci biir réew mi ñuy waxtaan ak nit ñi di diisoog ñoom kenn ku ne lan moo nekk sa xalaat ci luwaay bees yi nga xamante ne ñu ngi ko nar a tabax fii ci biir réew mi ci gàttal rek euh, ñu bëgg a waxtaan rek lan moo waral loolu ak ban solo la loolu am solo fii ci biir réew pour war a waxtaan ak ni nit ñi diisoog ñoom laata ñoo indi luwaay bees yi fii ci biir réew mi waaw diisoo eh, moom dafa baax si lu nekk waaye bala ñoo dem foofu sax dina am solo tam pour nit ñi xam lan mooy constitution sax parce que mbir bala ngaa xam lan nga ci war a def foog nga njëkk a xam mbir moomu lan la xam nga constitution léegi-léegi na suñ ko waxee wax bi xala rëy tuuti si ñu bari waaye constitution lu yomb la lu tubaab bi wax simple <laughs> lu simple la lu yomb la yéen fi ngeen a liggéey nii sax seen béréb bi liggéeykaay bi am ngeen fi constitution mooy charta yi rek yi ñu fiy ne loolu moo war a doxal seen liggéey mooy ne loolu ngeen war a respecté su leen a liggéey ku ko respecté wul am na ay daan yu fa teg yoo xamante ne nii dinañ ko mën a jël pour pour pour fexe bi nga xamante ne nii li nga xam ne loolu nga war a def nga def ko euh, loolu ay chartal yoo xam ne am nga ko fii soo génnee si mbedda bi si koñ bi nga dëkk sax am na ay charta soo demee si gox bi am na ay charta soo demee si community bi am na ay charta muy dem di dem di dem bay egga si level réew mi boobu la ñu ooyee di constitution of the Republic of the constitution bi si boppam lu mu doon ak lu mu nekk mooy lu yomba la ay sarta ay règlement ay loi yoo xam ne dañ ko tiral ne réewi Gambia nii la war a doxee wala waa réewi Gambia d'accord nañ ne ñoom seen réew sarta yi ñoo ko war a doxal te ku ko jalgati lii ak lii ak lii moo la si mën a fekk si wàllum loi loolu mooy constitution lu yomb la waaye tamit soo bàyyee xel ñu ngi dem di jéem a sabab pour seen na dinañ mun a am constitution bu ees waaye am na constitution bu fi nekk ba pare mm-hmm. mm-hmm. soo liñ war a laaj suñu bopp tam mooy lan moo tax li fi nekk doyuñu lan moo tax ñu bugg a dem seeti leneen <clears throat> man yàgg naa di wax nit ñi ne leen Eh, tubaab dafa am lu moo wax jumping on the wagon maanaam am na ñu bari ñoo xam ne lu olof di war déggatil rek ne dama na waaw ñu bari dañoo jóg constitution bi baaxul constitution bi lii constitution bi léeg-léeg waaye soo bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax gis nga yi nga xamante ne nii ñooy mbir yi gën a am solo yi nga xamante ne nii bugg nga koo gis ci constitution en tant que expert soo bàyyee xel ëpp doole bi yëpp mu gis ci constitution bi ñu am nañu mu nekk problème bi mooy woon soo amee constitution lu mu baax baax baax baax te ñi nga xamante ne ni ñoo am responsabilité bi pour fexe ba liñ wax ci constitution bi pour mu am. maanaam ñu sàmm constitution bi ñu sàmm ko ñooñu suñ deful seen wareef te constitution bi du amati njëriñ moo tax dina dem ba egga foo xamante ne ni nit ñi duñ yi lan la constitution bi digle ak lan. moo xamante ne ni loolu la ñu ko war a saam saytu nekk di def so dañoo dem ba egga scénario wala a boo xamante ne ni ñoom dañoo jàppane rek lépp li nga xamante ne ni nguur gi def na ko rek ah, si constitution bi lañ sukkandiku constitution ñu ngi fi doon jàpp ay nit di leen tëj lu ëpp 72 hours duñ leen yóbbu court duñ leen duñ leen àtte constitution waxul loolu constitution bi fi nekk dafa tere loolu am na ay yeneen a yeneen allégations yu bëri victimes yaa ngee génn ñii ne dañ leen toojoo ñii ne dañ rey seen ay mbokka yooyu noonu yëpp du loo xamante ne nii constitution bi daf si bi fi nekk dafa tere am na section bu ñoo ooyee fundamental rights and freedom section boobu soo ko gisee li nga xamante ne nii euh, often su wax yëfi li fi li fi li fi loo xam ne jaaduwul ëpp doole bi yëpp daf dee jublu si wàllum aaxa ak yelleefi doomi aadama waaye ironie bi mooy soo xoolee constitution bi provision yi fa nekk pour aaxa ak yelleefi doonu aadama is as good as you can get maanaam dafa méngóog li nga xamante ne nii mooy global standards mooy li àdduna bi yëpp d'accord ne lii moo fa war a ne te moom si baati réew mi si baati réew waaye problème bi mooy ñi nga xamante ne nii ñoo amoon responsibility bi pour saytu ne loolu nekkul si kayit rek waaye tamit nit ñi mun nañ cee gis seen boppa si ni ñoo dundee on a day to day basis ñooñu ñoo fee. waaw monsieur Diallo kon lan moo waral coppite yi jamono ji ne dañuy bàyyi constitution boobu indi constitution bu ees. waaw si loolu laay ñëw dama doon defi background bi rek. Mhm. soo gisee loolu yëpp am na ah, dëgg la ñi fi nekkoon xëy nañoo ñoo deful seen wareef waaye tamit eh, tubaab ñu ne there is no point crying over spilled milk doo mun a nekk rek eh, di xalaat lu xew rek nga ne jaame la wala ni ñam yi. Mhm. déedéet am foo xam ne da ngaa draw nangu ne dëgg dëgg li lay fi xewoon munuñ ci dara nag xew na ba pare léegi nañ put mechanisms euh, in place put strategies in place put procedures in place to ensure ne lu mel noonu du fi xewati waaw soo léegi soo ñëwee ba egga si level boobu noonu it makes sense pour nga bugg a am new constitution not ne xëj na danga change li fi nekkoon yëpp <laughs> si constitution bi waaye xëj na danga koo def for what the white people would call or what the British would call for symbolic purposes pour wane ne waaw ñu ngi am na bunta bu ñooy tëj mooy li fi xewoon d'accorduñ si baaxul bëgguñ ko léegi ñu ngi bëgg a ubbi beneen bunta te beneen bunta boobu li ñu ko ubbee mooy caabi bi mooy doon constitution bu rees parce que am na tamit benn argument bu fi amoon ne 1997 constitution bi nga gis nii biñ ko doon paas wala ñu ko doon tooga diisoo bi nga xamante ne ni moo waroon a am diggante ñi ko tooga ak nit ñi mhm. diisoo boobu doyutoon dafa gàttu diir bu gàttal diir bu gàttal moo tax demoon na ba egga foo xamante ne ni xëj na sax mun ngaa wax ne am na nit ñu bari ñoo xam ne ah, xëj na sax ñoom li nekk si constitution bi du ma ne gisuñ si seen boppa waaye xëj na niñ si war a gisee seen boppa giseewuñ si seen boppa noonu so bii tax beneen opportunité la comme que léegi am nañ lu ñoo ooyee golden opportunity <laughs> boo xamante ne nii réew mi yëpp d'accord nañ ni fu nekk nii xel yi pexe yi ak xalaat yëpp dañu war a jublu si naka lañoo def pour move forward naka lañoo def pour make ko for lost time maanaam li ñu raw yëpp si 22 years yooyu and beyond ñu seet naka la ñoo def pour dabu ko so golden opportunity la xamatuloo kan nga am opportunity boobu so it makes sense pour ñu seize that opportunity ne léegi waaw nañ xoolaat constitution bi nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat waaye si xoolaat boobu noonu euh, li am solo mooy nit ñi gis si seen bopp moo tax constitutional review commission bi li moo def nii di génn di dem waxa waxa nit ñi di diisoo ak nit ñi di leen seeti loolu moo war a am parce que constitutional review commission bi xëj na ñu bëri understand yu seen mandate waaye ñoom taxawaluñ leen pour ñu defar constitution bu mm-hmm. est mm-hmm. déedéet constitution kenn du ko defar mm-hmm. constitution da ngaa dem waxal nit ñi ñu ne la lii lañ bugg. nit ñi koy defar. jërëjëf da ngaa dem ne leen ne lii lan ngeen bugg ñu ne la lii lañ bugg nangam lañ bugg sangam lañ bugg doo mun a jël nag benn nit ku nekk lu mu bugg mhm. nga fexe mu nekk si constitution waaye li ngay def mooy dangaa fexe di overwhelming majority li nga xamante ne nii moom loolu lañ bugg ak li nga xamante ne nii ñoom loolu lañ foog ne su nekkee si constitution bi réew mi dina dox loolu ngay jël def ko si lu ñoo ooyee draft. draft boobu su paree dem si National Assembly léegi député yi ñoom ñu diisoo si ñu si d'accord dañoo dellusiwaat si nit ñi. wanaat leen ko delluwaat ci nit ñi. waaw wanaat leen ko. Mhm. ne leen ne biñ ñëwee waxtaan ak yéen. Mhm. ah si suñ gis-gis lii ngeen bugga dem nañ yóbbu nañ ko jox ko exécutif exécutif yóbbu nañ ko National Assembly National Assembly vote nañ léegi ñu ngi koo ñëw indiwaat for one final moment pour wanaat leen ko léegi lu des mooy. pour ngeen def lu ñoo ooyee vote by way of a si référendum boobu si ngeen a amee seen baat pour wax ndax d'accord ngeen pour lii nekk loi bi doxal réew mi ndax d'accord leen su boobaa référendum dafa am waaye référendum boobu noonu tam dafa am solo pour nit ñi ñu ñu ñu ñu xamal leen lan mooy njëriñi référendum boobu ak lan moo war a sabab ah, ndax dañu war a vote yes o no as far as that referendum is concerned gis nañ ko fa indi pass 1997 constitution bi référendum bi was uh, given a very strong political dimension so demoon na bi nga gis ne sax nit ñu bari dañ foog ne su fekkee ne yow support nga parti bii <laughs> te mooy ruling parti da nga war a wax yes parce que si ñoom la jógee waaye su fekkee ne supportuloo parti boobu noonu da nga war a wax maanaam dafa demoon ba laxasu si daal te warut a demee noonu warut a demee moo tax bi ma déggee chairperson of the constitution review commission di wane this is an apolitical institution non partisan uh, non political impartial and it's only here to serve the best interest of the people loolu nekk na message boo xam ne message bu am solo la te nit ñi dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax lii du yëfi politique lii yëfi naka nga bugg a sa réew doxee yëfi bugg a sa réew la li ñoo ooyee patriotisme bugg a sa réew ah ñu jox la opportunité léegi pour nga am sa kàddu si ni sa réew wala demee ah naa ne ku jëlul opportunité boobu noonu tam ëllëg si biir lu mun di yàqu soo eboo xam ne yooyu tamit bokk na si ñu ko yàq euh, Omar waaw monsieur Diallo man kay euh, lii yëpp am na solo waaye li ma bëggoon a xam mooy dama dégg am na ñoo xam ne d'accord nañ ne fayeen mën nañoo mën nañoo jël laisser for two years bala ñoo draft constitution bu bees bi waaye ñeneen ñu ne non lii sax benn process la boo xam ne amaana soo ko joxee expert yi within six months sa gars ndax yow xalaat nga de within six months mun na nañoo def diisoo ak nit ñi def la ñoo def na and report delluwaat si nit ñi dañ ñu soog a dem uh, référendum because soo xoolee right now um, réew mi politique bi nu moo demee mun amaana because kenn xamagul lan moo xew because ñu ngi wax ne président bi amaana mun naa respect three years agreement bu mu def ak coalition bi after three years 2019 mu wàcca soo su dee two years la uh, constitutional review commission bi di dem dafa mel ni time boobu dafa fekka pareeguñ so su dee tamit dafay demee 2021 ñeneen ñu ne xëy na sax 2021 dafa fekk ñi sax pareeguñ ba léegi so loolu yëpp bu dem na ba am ba ñu tànn président bu ees change bu am fi fooguloo ne ñi dañoo dem ba time boobu ñu génnee leen beneen government ñëwaat again andiwaat ñeneen ndax déedéet fu nii waaw fu mu euh, laal nga mu am solo yi three years five years boobu hmm. euh, hmm. because there's a very strong political dimension ñoom politique taxuñoo jóg eh, waaye di nga gis ne eh, as far as the law is concerned eh, fu mu nekk nii suñ demee ba three years after bi nga wax noonu sax te ñuy pareegul dafa miin ne provision si nekk si constitution bi they still valid moo fay nekk ba léegi te loolu lu mu teral mooy suñ demee ba after three years sa président bi design ne dafa resign constitution bi is clear vice président bi mooy continue the sitting of the term there is no provision for so one way or the other su fekkee na ñoom parewuñ sax balaa waxtu boobu noonu ah change of government parce que um, du mun a am in the in the real sense because there won't be any provision for an election constitution bi fi nekk fu mu nekk provide for loolu noonu amoon naa wax bi leer na constitution bi fi nekk mhm. li mu wax mooy one of the ways in which a president can office is resignation because foog naa ne ñu bari loolu la ñu am in mind mhm. when they are saying ne président bi dafa war a serve three years rek ñu bari ñu ngi xalaat ne ok mun naa def three years after three years mu resign su fekkee ne loolu am na wala def na loolu su resigné sax constitution bi fi nekk li mu tëral mooy vice president bi mooy continue the residue of the term so miinul ne su wàccee dañoo am another mooy continue the residue of of the mooy nekk two years yi des oh instead of three months. waaw mooy two years yi des. ok residue of the term. Mm. a president is mm-hmm. so loolu bëgg naa mu nekk loo xamante ne nii lu leer la mu war a nekk. Mm-hmm. Eh, si si nit ñi ñu bari ñu ngi see ah, wax waaye unfortunately am na ñu bari ñu see wax ñoo xamante ne nii. Ah, xëj na xëj na angul biñ koo jëlee. Mm-hmm. ak angul ñu ko war a jëlee du du benn. boo boo mun nañ mënuñ koo jaar within six months mun see liggéey within six months mu pare. gis nga man suma boppa amee. legal consultant, I uh, work as a legal consultant for the, for the UN, for the European Union, um, and I, have engaged in law reform exercises before. Um, from my experience, pour tooga defar constitution bu ees bu ñor boo xamante ne nii dina dina dina méngóog li nit ñi bugga wala li ëpp si nit ñi bugga loo xam ne dañ ko war a rush dañ jël suñu time pour man six months dafa tuuti because consultation bi gars yi di def nii fu mu nekk nit ñi dañ leen gis xëj na ñu ngi si dex bi di wax a nit ñi waaye loolu is just one facet of the consultation that they have to do they have to consult with different people different uh, individuals different organizations different institutions at different levels at different levels so pour man uh, timetable bi gars jox seen I believe is reasonable I believe is reasonable because I'm sure ne timetable boobu du loo xam ne da ngaa toog rek ne nangam waxtu lañ soxla dangaa da am lu ñu ooyee work plan boobu mooy dictate how long nga need pour def sa liggéey so nga ne waaw for the first three months ma consult ñi eh, after that another three months to consult eh, another six months to come eh, try and rationalize what we have Uh, try and come up with a first draft, uh, and then engage people again, etc. There are different levels. There are different levels. am na am na lu bari loo xam ne dañ ko war a def dafa mel ni nga war a tooga rek soo waree tooga si waañ uh, doo mun a doo mun a topp am na yoo xam ne mënuloo koo topp waaw na yoo xam ne mënuloo koo topp soo ko toppee sax xëy na di nga tooga ba léegi waaye tooga bi ni mu war a mel du ko mel su fekkee ne maalo baa ngi am ay tilim si nga war koo tànn tànnuloo maalo bi nga jël rek suuf dugal ko noonu di nga tooga maalo be léegi mm-hmm. di nga am ñankata waaw waaw ba ba léegi ñu bari ñu ngi wax liñ bugga am na ñoo xam ne ñu ngi wax de penalty bi dañ bugga mu nekk foofu waaye man dafa am li ma itteel li nga xam ne dama bëggoon mu leer tuuti because li ma leerul mooy ndax uh, Gambia secular state la because uh, du seen li may gis ñi ñaa ngi dibet ay mbiram te yaakaar naa ne this commission gars yi war nañ ko comme that section of the constitution foog war nañ ko gën a leer su ko defee ni ñaa because man dama mais bi lesee nguur gi du am dara lu moo defante ak këri diine yi te xam nga loolu dafay xaw a jafe ñu si suñu réew soo ndax foogu leen lu mel noonu comme section si mel noonu wala provision si mel noonu si constitution bi war nañ koy mën a leeral benn nit ñi nit ñi tamit mën ko understand waaw loolu dëgg la waaye ma am lu ma leeral mm-hmm. parce que xam nga wax nañ fi ne constitution bi on paper mm-hmm. euh, nit ñi foog ne noonu la yaaxoo yaaxoowu dee waaye tamit loo mun di gis loi nga xamante ne ni noonu la seen réew di doxee te te président bu nekk yaakaar naa ne loolu moo la war a tax a jóg nguur gu nekk yaakaar naa ne loolu moo la war a tax a jóg parce que constitution bi loolu la digle te loolu santaane. léegi ci wàllu raw gaadu bi nag. raw gaadu hmm. waaw xam nga mbiri raw gaadu bi moom xam nga eh, man daal dama foog ne daal nit ñi ñoom ultimately ñoo amee kàddu gi ñoom ñoo war a decide kan moo leen war a jiite pour man personnalité. ku am majorité rek war ngaa mën a fal pour man am majorité rek war ngaa mën a fal 51 pour cent soo ko amee war yi ñu ne ina démocratie noonu war na demee noonu. ah waaw xam nga looloo nee si démocratie dam xam nga 51 pour cent bi. waaw euh, ñun si suñu réew mi fii suñu élection yi demee wu fa noonu. ñun bu ba fekkee ne bu fekkee ne benn karta nga rawee opposition bi sax. yow yaa am ndam ci élection yi. waaye léegi nag nit ñi lu ñuy jooytu mooy pour ñu indil leen pourcentage bi. waaw non 51 pour bi. maa ngi koo jëlee si perspective boo xamante ne nii na ñaari ñaari nit nga am ñuy jongante waaye su fekkee ne am nga moo daan ñaari nit ñuy jongante man d' naa si ne ku am majorité bi. Mhm. ko war a fal. kooku war a fal d' accord naa si loolu. xaw ah parce que parce que élection moom dafa mel ni bëgguma koo ooyee beauty pageant waaye dafa mel nii ay nit yu ñëw rek parce que am nga la mooy politique politique mooy nit ñëw rek ne la lii laa gëm ba pare fexee tam. pour make sure ne yow di nga góom moom li mu góom loolu mooy politique soo ñooñu ñuy ooyee politicien ñoom ku nekk am nga sa agenda ku nekk am nga sa manifesto ku nekk am nga li nga xamante ne nii yaakaar nga ne loolu suñ la mayee opportunity ah dina mun a tax réew mi dem kanam soo léegi da ngaa ñëw wax ni wax ni ku nekk wax ku nekk wax léegi su waxtu saani jotee. nit ñi ñëw xool ñu ne kilee yi nekk ak yi fi nekk ak kilee fi nekk léegi ñoom ñu seet ku leen doy si wax yiñ dégg yëpp ñu seet ban moo leen si gën a convince ak si kan leen gën a am yaakaar ne moom su toogee li mu wax dina ko jëfee waaye tamit su toogee dina mun a jëmal réew mi kanam léegi nit ñi suñ amee opportunité boobu ba ñëw ne masam wala ma dem moom lañ bugga suñ lu ëpp suñ karta yi moom lañ ko jox kon dafa mel ni si ñi nga xamante ne ñoo wane seen bopp ne dañoo laaj réew mi ki fa li war a bàyyi mu jiite waaye bu fekkee ne eh, nee nañ eh, askan wi seen bopp ñoom ñooy tabax luwaay yi maanaam constitution bi ñoom ñoo koy samp ñoo koy dooleel eh, ndaxte constitution bi mënta ci réew te nit ñi askan wi ànduñ si bu fekkee ne askan boobu ñoo nekk di jooytu loolu di wax ne loolu war naa am maanaam war nañoo indi possibilité bi foog naa ne loolu tam dañ ko war a dugal ci constitution bu fekkee ne nit ñi ñoom ñoo ñaxtu loolu non li nga wax loolu dëgg la xam nga man suma xalaati bopp laa la wax waaye xam nga wax naa la fi ne constitution du xalaati looya Jallow mm-hmm. wala du xalaati Mr Mr Camara Camara mm-hmm. wala Mr Tunkara loolu li nit ñi bugg la ñun suñu wareef mooy nit ñi duñu laaj si li nga xamante ne nii dafa jëm si wàllu process boobu ñun ñu see joxee suñ lu tubaab bi wax si joxee suñ xalaat léegi nit ñi ñoom ñooy desin suñ dégloo looya jàll ñu ne ah, lu mu wax nii eh, enu na maanaam waaw léegi ñun sax si ñuy ñëwee fii pour consultation ne leen wax ne lii lañ bugg waaye suñ dégloo looyee jàlloo ne ah lu mu wax ñun d' accord si loolu. in mm. fact ñi su ñëwee consultation ñun nañ leen wax ne leneen leen bëgg loolu tam des na si ñoom loolu si nit ñi la des. Ah, waaw bala laaj ndax nit ku luwaa daan mën mm. naa sànni kàttan because ñaa ngi wax ne kiñ te si kaso yi sax gaa si nekk si kaso yi sax at least war nañ la may raay ñoom tamit ñu dem ñu na ma si. waaw si am yoo xam ne am xam ne dañ leen dee may opportunité boobu waaye si ban façon ñu daan lañ la daan mm-hmm. dafa tamit su fekkee na ñun dem nañ ba waxal nit ñi wax leen li nga xamante ne nii moo nekka di xew si yeneen dëkk yi wala si yeneen réew yi expliqué leen naka la moo demee ñoom suñ paree ñu décider seen bopp ne waaw dëgg-dëgg euh, dañ bugg ñu nekk si kaso bi tam di sànni waaw su boobaa loolu tam des na si ñoom waaye leen rek laa bugg a wax lu am solo euh, dëgg la constitution nit ñaa koo toog dëgg la lu nit ñi bugg la <laughs> waaye tamit loo gis si àdduna dafa am tubaab yi ne ko starting point dafa am yenn mbir yoo xam ne they are what we call global standards yoo xamante ne nii àdduna bi yëpp wala borom xam-xam yi si àdduna yëpp d' accord nañ ne constitution bu ko amut dafa manqué constitution bi dafa manqué so yooyu nekk na ay mbir yoo xamante ne nii eh, one way or the other dafa war a nekk si constitution waaye tamit di nga gis ne sax yooyu ay mbir yoo xam ne la ñun suñ nit ñi dañ si gis seen bopp ba pare. soo góomalee dina war a nekk problème. nekk problème lu mel ni fundamental rights and freedoms human rights soo laajee fii nit ñi eh, right minded people yëpp dinañ la wax ne waaw dëgg la li ñoo ooyee human rights suñ gis nañ si suñu boppam ne bul toroxal doomi aadama ne bul nopp doomi aadama ne bul toocoo nit ne bul jaay nit doole si kaw ale la loolu eh, without constitution sax ñun yaakaar naa ne eh, suñ kilifa yi yàgg nañ di dugal ñu mel ni suñu mm-hmm. so those are global standards yooyu moom one way or the other dafa war a nekk si si constitution waaye góoma ne tamit dina indi difficulté dina indi problème parce que bi ma dégloo feedback bi nekk di jógee si consultation bi bi gars yi nekk di ama nit ñi si réew mi yëpp uh, di nga gis ne sax ñoo ñoom uh, dafa mel ni dañ yàkkamti sax yu mel noonu uh, ñu gën koo dooleel si biir si biir constitution bi so loolu wane na ne eh, nit ñi dañuy dañ gën a eew eh, loolu wane na ne tamit nit ñi xam ne liñ bugga waaye tamit wane na ne nit ñi léegi am nañu better understanding gën nañoo understand wala gën ñoo xam lan mooy constitution lan la constitution war def ak lan mooy seen rôle ñoom si constitution boobu la te loolu am solo parce que nit ñaa ko tax a jóg waaw euh, bala ñu tëj rek euh, lu am solo mooy euh, gannaaw bu ñu demee ba taxawal constitution bi yaakaar naa ne am na solo ndaxte government as a part to play pour askan wi seen i bopp xam lan la lu loi digle ak lan la loi santaane fii ci biir réew ndaxte baatu réew mi fi nekk tey comme ni nga ko waxee bu luwaa yu bon yi ñoo fa nekk mm. waaye dañ ko bëgg a ngir mm. nit ñi nekkuñ di ko jëfee ni ñu ko war a jëfandikoo fii ci biir yaakaar naa loolu bokk na ci li ko gàllankoor mooy nit ñi dañoo ñàkk xam luwaa yi nga xamante ñoo nekk ci biir constitution bi mm-hmm. so I believe ne it's the responsibility of the government pour ñoom tamit ñu make sure ne dinañ play a part pour nit ñi ñu xam lan la luwaa yi digle ak lan la loi yi tere fii ci biir réew mi ndax dañu bëri boo leen waxee dañuy wan ne ah xaw ma woon ne lii loi daf ko tere fii ci biir loolu loolu wax bu am solo la sax te dëgg la parce que loi pour nit ñi la loolu da soo bàyyi xel constitution bi ñu amee nii taxawal lu ñu ooye National Council for Civic Education ñoo loolu mooy seen liggéey loolu mooy seen wareef du ñoom rek nag mhm. waaye ñoom ñoo war a nekk si bopp bi ñoo ko war a spiaxee ñoo ko war a nit ñi dañ war a xam su ko defee nga xam fooy teg sa tànk parce que am na ay lawyer yuy argue sax ne euh, ñuy ooyee juriste ñu ne loi sax su fekkee ne am na te ñi ko war a xam xamuñ ko jaaduwul sax pour nga war a daan nit ci loi boobu nañu wax loolu te nekk na wax boo xam ne xëy na xel mun na koo nangu so na solo trop pour suñ defee loi yépp in place constitution bi ees nekk in place léegi ñu demaat ci beneen fànn mooy di woo di def tubaab bi woowee awareness raising mhm. di def sensitisation su ko defee nit ñi ñëpp xam lan mooy luwaa bi nit ñi ñëpp xam fan lañu war a teg seen tànka lan la leen luwaa may lan la leen luwaa tere donte sax nit ñi dinañ si gis seen bopp ba pare bi ko luwaa yoo xam ne la fu mu nekk nii ñoom ñoo nekk ñi ñi nekk si waañ bi di ko tooga waaye suñ demee tam ba mu nekk luwaa bi ko fu mu nekk nekkul luwaa de nekk ay waxtaan la ay waxtaan la ay proposals ay drafts waaye su demee ba nekk loi ba député yi euh, euh, woote ne na nekka loi nit ñi d'accord ne na nekk loi su boobaa d'accord na ak yow dañ war a delluwaat si nit ñi sensitise leen euh, gën leen a ee gën leen a xamal lan nga xamante ne ni moo fi nekk si constitution bi waaye du constitution bi rek de yoo xam ne yeneen loi mm-hmm. yoo xam ne tamit si constitution bi la sukkandiku ko defee ñoom i tamit ñu xam li nga xamante ne ni loolu lañ ci war a xam waaye tamit leneen li am solo mooy suñ demee bi am ñu constitution sax nguur gi ba léegi am nañ wareef bu toll ni ñu fexe ba li nga xamante ne ni loolu la constitution bi digle ñu sàmm ko parce que du ko mooy constitution bi lu mu baax baax wax ci lu mu rafet rafet rafet xalaat yi lu mu rafet rafet rafet su fekkee jëfewu ko amul njëriñ amul njëriñ moo tax it su constitution bi ñëwee euh, am na lu ñuy wax ay separation of powers dégg la si exécutif la ñoo teg seen loxo pour ñu ensure ne the constitution is implemented waaye su fekkee ne ñoom euh, nit mer na walla nit foog na ne xëy na li nga ko war a defee defeewuñ ko noonu euh, wala keneen ak keneen nu mu war a def defu ko charte yi mu méngool ak constitution bi defu ko loi ba lu ñoo ooyee judicial headed by chief justice and the judges ay yeneen àttekat yi su fekkee ne da foog nga ne constitution bi li mu la jox am na ku la koo xañ mhm. te waru la koo xañ wala constitution bi jox na la àq boo xam ne euh, bañ nañ la koo jox su boobaa da ngaa dem foofu ñoom waaw su ne su fekkee ne loi am na ku koy garde soo eboo ne bi ñoo koy garde ñoo koy garde exécutif moo koy euh, exécutif moo koy xalaat yóbbu ko législature législature passe ko su dee constitution la nit ñi d' accord waaye su paree ba nekk loi nag ku si am lu la naxari ak ku si foog ne euh, am na loo fa yelloo te joxuñ la ko judiciaire Ndiaye de eh, ñoom ñoo yore wàllu atte yi su ko defee Omar xam na fii la ñuy jaar rek eh, tëj programme bi ndaxte lii la ñu waxtu mayoon eh, kii di loyamaan bi xëej bi Diallo lañ fi amoon nag ci waxtaan bi am solo ci wàllu constitution bu réew mu di baatu réew mi nga xamante jamono ji ñu ngi say def ab càmbar laata ñu koy taxawal fii ci biir mi di si diisoog askan bi su ko defee rek monsieur Diallo dañ la jaajëfal bu baax a baax ci waxtu boo jël rek jagleel ko stade yi jërëjëf jërëjëf ma ngi kontaan naa waaye eh, foog ne lépp lu fi wax dina doon njëriñ suñu ñoo déglu loolu moo ñu tax a jóg looy taxaw. waaw di jaajëfal euh, ñëpp rek di jaajëfal monsieur Diallo si euh, euh, lam ñu may time bi pour ñu toog a ma waxtaanam si li si lu itteel li nga xam ne jamono ji itteel na askan bi yëpp di ko wane jërëjëf waaye tamit di jaajafal askan bi ñu seetaan. Euh, kon nag euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon seetaan rek fii ci Star TV seen programme mu suñu réew rek ngeen ànd koog seen i xarit seen soppe Seydou Camara ak Omar Tunkara ñu dalaloon kii di lawyer Malick Hedbi euh, Diallo waxtaanee lu jëm ci wàllu luwaay yu réew mi mu di constitution bu bees bi nga xamante ci jamono ji ñu ngi def ab càmbar di def ab gestu di si diisub nit ñi laata ñu koy indi fii ci biir réew mi ñu dig leen daje rek aljuma incha allah ñu dellu si ak yéen ci suñu réew jërë ngeen jëf ci seetaan bu bi di leen ñaax rek ngeen continuer di sa foo Star TV